bëgg a comprendre lan moo tax tey hymne national boobu noonu fii yëg amul ñu am courage dem changer ka parce que maa ngi doon dégg ñu bëri imaam yu bëri naan euh, nañu changer hymne national bi mais dégg xale yi activiste yi yëpp di nañu changer hymne national bi mais tey bi ma déglu waatee marseillaise bi déglu parole yi tout le temps tout le temps parce que ça m'a jamais intéressé cette marseillaise ma gis parole yi ci nekk ni muy jatee nit mooy boo ñàkkoon jom sax boo dégloo marseillaise bi da nga nekk française de français da ngay jóg rek ne xaam dem xeexal sama dëkk mais ñun bu ñuy déglu pincé tous les cora fa muy rek mooy dem leen dem leen fecc ji musique bi rek bala fond yi ñuy frappé laa xamul ban utilité la am ndax kuy dem guerre ji est-ce que soxla ngaa frappé ba euh, est-ce que tal nga déglu bala fond ba naan da nga koy frappé ñun ñoo am problème am problème de refaire repère am problème d'identité tey am na ñoo xam te ne seen repère mooy seen mooy Senghor Senghor bu fekkente ne Senghor bii nga xamante ne dafa naan la colonisation est un mal nécessaire te démontré wu leen lan moo tax ñu naan la colonisation est un mal nécessaire ñun naka la ñu mën a ñëwee ba ne dañuy relever wu moo tax ñu bëri comme il a cité le mot mal nécessaire am na ñu bëri nécessité bi lañ ci jàpp mooy les larbins comme capitaine Dièye ñoom nécessité bi lañ ci jàpp. des larbins comme Macky Sall nécessité bi lañ ci jàpp parce que pour ñoom c'est un mal nécessaire ñooñu genre yooyu noonu Senghor moo nekk seen référence tey il faut pas oublier que depuis des années et des années et des années dañoo doon jàng ay poésie Senghor am na xale yoo xam te dañuy continuer di jàng poésie Senghor ñu tegal leen si seen xel que ne la colonisation est un mal nécessaire tubaab bi ñëw tegal leen fa benn ay hôpitaux yoo xamante ne tey ay sa poste de santé yoo xamante ne ñun tellement que ñun li ñu tubaab bi wàccal noonu ça nous est pas utile parce que la euh, la médecine se modernise mais comme on nous a mis dans notre tête que la colonisation est un mal nécessaire tey poste de santé yooyu noonu ñu ngi koy entretenir jusqu'à présent lépp li fi jàmbaaru euh, Pastef maa ngi nuyu bu baax a baax lépp li fi tubaab bi wàccoon comme Macky comme comme Senghor nee na c'est un mal nécessaire te y a des nègres qui sont là pour entretenir ce cette nécessité bi nga xamante ne moom la nga xamante ne moom la fi Senghor wax ñoom li Senghor wax yëpp ils ont ils ont fermé les yeux sur le mal et ils veulent continuer de maintenir ce qui est nécessaire et ce qui est nécessaire ne l'est plus et ne l'a jamais été tubaab da lay jox benn cadeau bu ndaw day jeter l'hameçon pour mun a pêcher le maximum de poissons tey nag tubaab bi dafa pêcher le maximum de poisson parce que tey bu ma dégluwaatee capitaine Dièye li mu wax nee na effectivement loolu yëpp ñuy wax baax na mais mënuñu cee génn parce que dañu am lu ñu lu ñu lié ak ñeneen ñi góor gu amul cu góor guy dawe bu am cucu boobu noonu dañuy def am lu ñu lié yeneen dëkk yi nga xamante ne mais ñeneen ñi s'ils veulent pas sortir on s'en fout tey ñeneen ñi bu ñu bëggulee génn ci indépendance bi bu ñu bëggulee jël indépendance bu fekkente ne ñoom noot leen noot da neex man personnellement je m'en fous même Mali bi ñun pour le Sénégal on se pas pour les autres benn contrat lié wu ñu ñeneen ñi problème yi am Sénégal yëpp tey Euh, Covid bi mu ngi ñëw est-ce que ñeneen ñi engrenage boobu ñeneen ñu ngi lijjante est-ce que dañuy def ay achats regroupés pour les médicaments est-ce qu'on fait bu fekkonte ne l'Afrique unité bi ñuy wax am na Afrique est-ce que ñun ñëpp dañoo cotiser ñun africains yëpp ne kaa ñu am au moins benn hôpital bu baax boo xam te ne ñun ñëpp ñu ciy fejoo tey tubaab bi bu ñuy lebal danaan les l'endettement du Sénégal l'endettement du Mali l'endettement de la Côte d'Ivoire c'est pas un endettement regroupé bu Macky Sall di dem di lebi ji il va faire des crédits pour le Sénégal bu Macky di maye suñu ressources yi il le fait pour le Sénégal léegi cet engrenage là ça se trouve où ça se trouve dans notre tête suñu bopp ñun ñoo foog ne ne ñun bu ñu génnee dañuy li am Mali day am Mali li am Mauritanie day am Mauritanie li am yeneen dëkk day am on n'a pas la même éducation déjà amuñu benn sensibilité bi boo leen demee Mali eh, boo leen boo leen demee fële na le euh, Côte d'Ivoire est que ñoom am nañu ay confréries boo leen demee Mali est-ce que am nañu ay confrères yi def nañ ko même la façon de croire on n'a pas la même façon de croire léegi fan la engrenage bi nekk y a pas d'engrenage ah l'engrenage se trouve dans notre tête. amul Aliou sax maa ngi nuyu bu baax engrenage bi suñu bopp la nekk ñun la ñu séquestré rek nañu ne déedéet dañ leen di noot léegi nag ñun mu am si ñi nga xam ne dafa am ay nègre de service yoo xam te ne dañ leen formaté ne leen ne toog leen fii si vous même réussir dans votre vie wala negre de service il se dit man bu fekkente ne bëgg naa réussir forcé il faut ma ànd ak Séné moo il faut ma ànd ak tubaab bi léegi loolu la ñuy wax l'argent lécher son cul pour avoir un poste tey l'argent boobu noonu moo am suñu gouvernement am na ñoo xam te ne bu ñu xëyee mattaatu Macky Sall rek lañ fa nekkee pour ñu mën a am poste léegi dafa amaat beneen euh, euh, beneen supériorité bu fa am mooy ñoo xam te ne nee nañ bu ñu bëggee nekk président raccourci bi la ñuy jël daal raccourci bi mooy. au lieu ñu dem xeex seen aka seen yelleef imposé wu suivant le dañuy dem martaat tubaab bi moo tax ngeen di gis ku bëgg a nekk président de la république mu dem nekk ji franc-maçon ba pare mu mataat bi ñu juutal ko ba pare mu doogay doon président de la république bu pare mu ñëw naan dañuy commandé tey dañu toog ay góor jigéen ñoo ñu commandé ki nekk ci kaw ni dañ koy juutal ba ci ko kaam moom moo ñëw di ñu commandé moo ñëw di xool lu ko neex mu def ko ci dëkk bi léegi ñun dañuy continuer góor jigéenu tubaab bi muy ñëw toog di ñami ñami suñu kaw ñun ñuy ŋaanga ka ñepp ne France mooy commandé ñàkk fayda boobu nelaw naa ba yeewu grâce mat sax laa def ñàkk fayda boobu noonu laa bëgg ñu génn ci yi nga imaam dikko bi nekk fële ne Mali ay imaam dikko laa bëgg mu am Sénégal mooy ñoo xam te dañuy taxaw am imaam dikko ne néew ne ko génnal Mali yi si boppam. ñoo ñëw ne taxaw te pourtant une bonne partie des Maliens Mali Mali am na village yoo xam te ne ñoom ñëpp c'est des français segam village boo xam te ne ñoom ñëpp ils sont français dëkk boobu ñoom ñoo mun a toog ne euh, ñoom dañuy xeex ils veulent leur indépendance indépendance capitaine Dieye mooy yaa moom sa pétrole yaay xool koo koy jaay ak ñaata nga koy jaayee yaa moom sa zircon yaay xool koo koy jaay ak noo koy jaayee indépendance mooy nga nekk sa dëkk libre di nga les traîtres comme capitaine Dièye ngay teg ci ci prison bi ñu jàpp nit yi di leen dóor comme des esclaves parce qu'ils ont été formatés comme des esclaves moo nekk li ñuy wax majordome boo leen demee seetaan film esclaves yi majordome yi moo nekk ñu mel ni capitaine Dièye un majordome on en a pas besoin majordome yi gis nañu seen rôle pendant l'esclavage c'était les plus grands traîtres tubaab bi bu gën dóor nit ku ñuul ki day woo majordome bi nekk kaay nga door sa propre frère noir tey majordome yooyu noonu la ñuy jël teg leen fële bu fekkee ne amoo leen kuy soit ñu jëndal leen ay kuy ngeen dem affronter xam ne vous êtes des hommes soit ngeen dem toog fële ñu tàpp leen dootoo leen amati jabar dootoo leen amati dara doot parce que vous ne servez rien dans la société mënoo leen servir seen bopp mënoo leen servir seen société li nga marseillaise bi boo leen demee déglu ko il faut prendre le temps ngeen di déglu marseillaise bi benn yoon ñaar yoon ñetti yoon ngeen comparer yéen suñu suñu pincez tous les vocora boobu noonu frappez les balafons di ngeen xam fan la ñu pincez tous jëmee ak fan la marseillaise jëmee peuple français. peuple français bu ñu dégloo marseillaise bi rek day mel ni dañ leen jàtt muy paa muy xare ñëpp la ñuy woo ne leen jóg leen bu ñu nee soldat waxuñu rek ñu nekk ca armée ba population bi man je comprends lan moo tax bu ñu nee manifestation rek. ñëpp ay jógandoo fii France ils l'ont dans le sang parce que dañuy juddu rek ñu tegal leen benn hymne national boo xamante ne mooy jat population bi bu xale bu ñu koy déglu dañ naan ñun kon on doit défendre notre pays patriotisme bi te ba pare euh, euh, euh, hymne national boobu noonu depuis l'école lañ leen koy jàngal xale yi buñ koy réciter c'est une fierté hymne nationale bi boo koy déglu tu te euh, euh, tu te dis mon rôle tu te donnes d'abord ton rôle dans la société naka nga mën a servir sa dëkk man je comprends lan moo tax tubaab bi bëgg seen dëkk ñu suñuy national bi commencé pincer tous wax leen ma ban civisme la ñu mën a jàng ci pincer tous frapper les varafons ban ban ban ban jom la ñu mën a yokkal suñu góor yi lii moo tax ñu jógee armée gën a ñàkk jom armée ay góor jigéen lay former parce que hymne national bi ñuy taxaw di bu di taxaw di di di di ni nii bu ñu koy réciter hymne national boo xam te ne pincez tous euh, frappez les balafons le lion rouge a rougi mos ngeen gis lion bi fecc mos ngeen gis lion bi fecc lion am na fulla fulla boo xamante ne lion lu tax mu nekk mu nekk chef du ñàkkaloo boppam ci fecc ci àll bi nga foog ne lion day nekk di feccal ay golo ci biir àll bi yéen ñu neel leen ñu neel leen pincez tous ba pare le lion rouge a rougi lion bi di rougir fan lañ koy domtewee ñun ñoo mënta domte dara ndax du musique mooy domte lion bi ba lion bi di rougir ba lion bi dans la forêt n'a pas besoin de de de, de musique mais ñun dañu jël defal ñu benn idéologie boo xam ne est-ce que est-ce qu'on se rend compte ñoom ils nous ont comparé avec un animal ñoom ñu ne seen peuple ñoom ñëpp dañu jóg aux armes citoyens bu ñu nee aux armes citoyen lañ ci teg mooy citoyen yëpp ñoo war a jël euh, seen arme pour défendre seen dëkk ñun ñu tegal ñu ay lion Richard Rouget fa la ñàkk jom bi fa lañ ko commencé nag di ko togg ñàkk jom bi dañ ko togg moo tax bi Senghor di doon def hymne national bi boobu hymne national lañ ci validé parce que plus suñu góor yi di ñàkk jom plus ñoom bu bu ñu domtewee ñoom bu ñu bu bu bu seen marseillaise bi bu ñu ko chanté ba ñoom ñu jat leen ba pare bu ñu ñëwee ñoom dañuy toog suñu diggu bopp bi di ci def kaka te ñun duñu bouger mètre moo tax ñu ngi def matin midi soir kaka ci kaw suñu président de la république moom mu ne nii moo tax suñu président de la république bu dégloo euh, euh, euh, ni ñu koy waxatee pincé tous bi ba pare Macron diklu marseillaise bi ba pare mais Macron Macron il est fier d'être français il est fier d'être français parce que la ñu wax ca marseillaise bi def ko jat yokku ko jom Macky Sall moo tax bu Macron di wax moom day fecc xam nga mu ngi fecc Macron ba Macron balaa muy fecc mooy signé nañ ko contrat yëpp total Auchan tout et qu'il a tout na dëkkam il vit pour honorer son pays parce que sa marseillaise ba ñi leen jàngal seen hymne national bi dañ ko dañ ko jat dee ba mu nekkee xale ñu ne ko ne yow tu dois honorer ton pays par tous les moyens ñun sax pincer tous bi lañ commencé pincer tous les cora frapper les balafons am na ñoo xamante ne sax yeggale wuñu la ca des mënuñu ko ñoom bu Sénégal ñëpp mën nañu pincer tous les cora frapper les les les balafons la ca des yëpp am na ñu bëri mënuñu ko. moo tax xale yëpp ca comme pincer tous ba la ñuy yem xale yi ñu ngi ca fecc ñu ngi ca mbumbaay ba ñu ngi ca lëmbal ba góor yaa ngi lëmbal ça vous surprend que góor yi di lëmbal Sénégal non ça ne surprend parce que pincez tous frappez les euh, balafons foofu la ñuy yem ca yooyu noonu la ñuy yem di lëmbal moo tax lii am si dëkk bi yëpp dem leen ko xool le problème ça vient de là ñun am problème de repère problème d'identité maladi boobu nag depuis indépendance bi jusqu'à présent moo ñu topp Senghor dañ ko doon juutal moo fi indi pincez tous les euh, frappez les balafons Euh, kii Abdou Diouf dañ ko doon juutal Senghor euh, euh, Laay Wade moo ñëw rek ne déedéet man damay génne def dëkk bi ñëpp góor mais maleureusement ay góor génn ci ñoo ko ñoo ko waroon moo tax dëkk bi demee ni mu demee ba dañ ko ko joxoon mu nekk mag moo tax ñu tombé si baa baa teer tey boo leen demee ab yeer ñi fa nekk yëpp bu leen tubaab bi ne kaay leen ma juutal leen jox leen un milliard ñoom ñëpp dañuy dem sukk tubaab bi juutal leen avec l'argent du contribuable dañuy dem sukk ñu juutal leen parce que loolu lañu nàmp parce que complexe boobu lañ leen yaree te complexe boobu noonu pour mu dañ il faut mu am génération boo xam te ne dañoo tenace ñoo xam te ne dañu yenn saa dañ naan réew baaxul xamadi baaxut mais dafa am fu mu baax am na fu mu baaxut te fii daf ci baax parce que fii il ngeen imposer wu boo leen imposer wul tubaab bi du leen mës a respecté yéenay mës nekk ci ginnaaw si vous ne vous imposez pas ku leen bëgg a destoo ci ginnaaw nee leen ko boo bëggee yow nga dem tubaab bi juutal la capitaine Dieye boo bëggee tubaab bi juutal la comme ni muy juutalee say sa nijaay yi fi nekk ñi fi nekk nii ci gouvernement bi comme ni mu leen di juutalee boo bëggee nga dem ñu juutal la tey Rockefeller il était pauvre comme nu pauvre mais vraiment pauvre mais demul woon sir bi ñu di ko juutala dafa utiliser woon cerveau bii nii pour génn ci pauvreté pauvreté peut être un avantage comme ça peut être un défaut ñun suñu pauvreté ci ñenn ñi c'est un défaut moo tax ñu naan dañuy sagu reconnaissez d'abord que vous êtes sagu bi xaju fi parce que ñun ñoo nekk vingt cinquième pays le plus pauvre au monde ñu sol ñu sol yére rafet ñu gàddu Chanel ñu sol Macky Sall jënd fi oto bu gën a rafet sur terre terewul ñun ñoo nekk le pays le le vingt cinquième pays le plus pauvre au monde l'un des pays les plus endettés au monde mooy fi fii bi conscient wu ñu ils sont pauvres tey Babacar Ngom am fi ay milliards milliards milliards il faut qu'il se mette dans tête que ne Sénégal est le vingt cinquième pays le plus pauvre au monde et on est super endetté et je comprends même pas que dëkk boo xam te ne ñu ngi gën di endetté mënuñu produire dara mu mën a créer ay milliardaires yu mel ni Babacar Ngom là ça mérite une réflexion parce que dëkk bu mën a produire ay milliardaires xanaa kañ warul continuer di endetté wu ko waxee ñu ne da ñaan mais personne c'est pour vous dire que ne vous avez des faux milliardaires un pays où le pouvoir d'achat est minime, les pauvres ont à peine quelque chose à manger et que 80% des de la population sont hyper pauvres. Vraiment pauvres. ñu ne la dëkk boobu mu ngi produire ay milliardaires. calculeen kër gu nekk ñaata ginaar lay lekk par mois par an ñaata ginaar la sénégalais di consommer ñaata la ñuy jënd ngeen xool ndax am yéen mën ngeen def Babacar Ngom milliardaire wala mënoo leen ko def milliardaire. la question se la ba mais comme problème bi ñu am mooy kenn du déclarer impôt tout est faux moo tax dëkk bi seen lépp faux tout tout tout tout tout tout est faux même le président il est faux les ministre sont faux vous avez des faux ministres lépp ci base bi la. moo tax bu leen benn politicien di leen nax man de sama sama sama carte électeur xeex naa xeex a xeex ba ñu nangu sama péri toroxal ma jot naa ko yàlla alhamdulilah te reyuñu ma sant yàlla bu waree voté du ma voté pour góor jigéen du ma voté ku tooba tubaab bi di juutal du ma voté koo xam te dafa nekk sàcc man yooyu dafa am critères yu may xool pour voté te j'espère que yeneen sénégalais yépp dinañ xool yenn critères yu sew sewaan yi ñuy xool pour dem voté ñu ngi capitaine Dièye rëy na làmmañ rëy làmmañ ba nga xamante ne bu toogee wax ba kii nga ni kii ndeysaan dafa am fit man ba ma déggee muy wax au début dama ne ay waay gaayam bi mu amee fit kii moom kii la ñu soxla nekkati gaayam bi li muy am fit yëpp yëpp yëpp yëpp nekk suñu suñu rëkk am na ñoo xam te ne ñoo gën a rëy làmmiñ mais bu ñu demee ci tubaab leen juutal tax boo leen di voté tout est tout tout tout est important bu leen dem voté ji Khalifa Sall parce que ne ngeen Khalifa Sall xaytu Anne Hidalgo la am na ay noir yoo xam te ne Anne Hidalgo la ñuy votel parce que Anne Hidalgo xaritu xalifa Sall la loolu c'est des votes de nègres ne votez pas comme des nègres votez parce que Khalifa Sall baax na parce que Khalifa Sall am na lu mu leen won non pas parce que Khalifa xaritu Anne Hidalgo la Anne Hidalgo nee na Khalifa Sall baax na non non Anne Hidalgo boo leen gisee ñu voté ko mairie de Paris c'est parce que dafa def parisien yi loo xam te ne leen neex. day xool li li environnement parisien di laaj ak li parisien bëgg mu di ci dox loo tax ñu votel ka bu fi nekkee tamit bu fekkee ne pour nettoyer Paris il lui faut des éboueurs noirs des sénégalais avec une main d'œuvre moins chère dina dem jëli ji sénégalais yi ne leen kaareen bi bu fekkente ne tey jii dafa soxla pétrole bi soxla gaz bi pour defaraat aménager waat Paris il va faire comme Macron dina ñëw nax leen ah ñëw jaar foofu am li mu bëgg a am defar Sénégal parce que c'est comme ça que la société française marche ils marchent avec leurs intérêts et y pas de mal à marché avec ses intérêts l'intérêt de son peu de leur peuple ñoom ba ñu seen marseillaise bi lañ leen yedd na leen ne nii ngeen war a def citoyen nii la war a def buy xëy buy dox pour intérêt am la intérêt dëkkam léegi nag ñun ñëpp ñu ngi fi toog naan waa France dañoo noot non France nootuñu de ñoom dañ leen yar ba ñu juddoo ba ñu nekkee xale ñu jàngaleen lan mooy marseillaise ñu toog xale yi di ko dugg seen noppi ñu xam naka la ñu war a xeexee seen dëkk naka lañu ñu war a défendre seen dëkk ñoom xale yi di ñëw sax préparer nañ leen psychologiquement pour leur montrer naka la ñu mën a def ba maintenir seen position cinquième pays le plus riche au monde wala bu ñu mënee nekk première puissance mondiale ñu nekk ka ñoom xale yi dañ leen préparer ba pare ñoom doomu tubaab préparer wuñ ko pour mu nekk ndaare fii lay jox ay cours ay xale yoo xam te ne c'est des bourgeois une famille bourgeoise xale bi bu amee mauvaise note day jooy parce que nee na il risque de devenir pauvre pour jusqu'où lañ leen yar ne leen ne yéen da war a nekk tout le temps p p p p p ñun dañuy yar pour ñu nekk ndaare moo tax ngeen gis xale yi di dem ci ay piscine party xale yi dem di dem ci ay ay soirée di de gala li tubaab bi di def noonu noonu robe de traîne robe en traîne yoo xam te ne y a pas raison d'être star yee kay def da ngay gis xale bu pauvre boo xam te ne tu n'es pas star di dem benn milieu bu ndaw nga dem def robe traîne booy dem mariage sax nga dem def robe train comme marié bi mu mel ne yow yaay sëy ñun suñu population ñun ñun ñoo arriéré te nee na ñun ñoo dàq solo ñun ñoo gën a xam lu baax ñun ñoo mën a lekk lu baax ñun ñoo gën a rafet xam nga ku foog ne ne moo gën a rafet sur terre du defaru parce que danaan il suffit ñun on ce problème là de avec moo tax il faut ñëpp jóg. foo plus se fier avec ces politiciens à deux balles muy Saint-Cyr mun na am sax Amana gayen bi deux mois la def Saint-Cyr ñëw ne Saint-Cyr laa génne Amana benn année la fa jàng ne Saint-Cyr génne parce que c'est très facile de nier oui saint la laa génne boo moytu dafa dugg dix heures ñu dàq ko ñu dàq ko quatorze mu ñëw ne leen Saint-Cyr laa génne ana Ramayat fan la génne Sciences Po la génne non est-ce que amal na utilité tubaab yi non tubaab de souche bu génnee Sciences Po mun na def fonction pendant des années ñu mel ni Ramayat Idio Idio avant la naissance ñooñu noonu kenn du leen jox yenn fonction yu yàgg yi dañuy ñëw rek ñamal leen utiliser leen wane le nègre peut avoir un tel poste un mois deux mois neuf mois six mois après ñu jël la ñu balaye la Sibeth Ndiaye c'est pareil Sibeth a été plus malin que Ramayat parce que Sibeth dafa jël nationalité sénégalaise am garde ka garde identité sénégalaise am xam ne bu ñu ko utiliser tamit moom bu subaa bu leen mënatulee servir mun na dem servir Sénégal Ramayat boo ko waxee danaan non man je suis je suis française moom daf ko renier carrément ñi nga xam te ne dañoo renier seen nationalité sénégalaise mooy da ngeen jël seen chance de réussite ngeen diviser ko par deux. Parce que le monde a beau changer, vous n'allez jamais être président de la République en France. Un noir reste noir. Métis sax du fi doon président de la République ils son pas encore prêts fii dañu jiital seen intérêt dëkk ba pare ñu doogay tegaat leneen muy Macky Sall buñ ko joxoon nationalité française o oh, doomam du yàgg-yàgg ba mu doon président de la République de la France du yàgg-yàgg ba ñu nekkoon ni def nañ ko ba dañ la naan léegi tubaab bu tasaxew ci mbedd bi ton origine la lay laaj mooy nationalité bi il en a rien à foutre kan la nationalité mi intéressé moo nekk français de souche te français de souche y en a même plus beaucoup mais à partir du moment que tu es blanc de souche blanc de souche muy nga nekk français d'origine espagnole kenn du la ko laaj ah. tu es quoi tu es français d'accord mais bu fekkee da nga nekk français d'origine d'Afrique Maghreb dañ lay laaj tu es de quelle origine mais nombre de français yi nga xamante ne tey seen maamaati maam yi ñii Espagne lañ jógee ñii Pologne lañ jógee ñooñu ñëpp kenn du leen laaj ñooñu ils se font dans la masse ñii Allemagne la ñu jógee ñii Italie la ñu jógee ñooñu ils se font dans la masse ñun ñoo am pro ñun ñoo nekk seen problème ñun noir yi te dina gën a métti parce que seen race mu ngi commencer disparaître lu mu yàgg-yàgg plus ñuy avancer plus ñuy gën a wàññeeku. te ñun bu ñu amulee force comme chinois yi et qu'on travaille plus que les chinois et soit des gens intègres qui aiment leur pays duñ ci génn duñ ci mës a génn te pour loolu am il faut que hymne national bii ni ngir yàlla yonent bi bu ko kenn won doomam malheureusement sama doom sax xamul lan mooy hymne national du Sénégal bu ko kenn won doomam il faut que ngeen boycotter hymne national bi boo amee benn xale boo xamante ne mën na wéy mu inventé benn beneen son hymne national ñu adopté ka nga xamante ne ñun ñoom bu ñuy def seen hymne national pincez tous les vocora ñun ñu defal ñu benn hymne national boo xamante ni day yokk jom góor yi ne leen jóg leen xeexal seen dëkk ñëpp lay yokk jom ñëpp levez-vous jóg leen xeexal yéen ñëpp ñi dëkk ci dëkk bi jóg leen xeexal dëkk bi dëkk bi yéen a ko moom yéen a ko war a aar genre parole yooyu noonu nga xam te ne bu ko nit yi déggee rek nañ xam ne fii ci dëkk bi lañu bokk ñun ñoo war a protéger dëkk bi et que ñi ci dëkk bi dañoo am droit il faut que mu am xale yoo xam te ne ñu osé ñu def hymne national boobu noonu créé ko bu leen sax ne parce que boo leen newee larbin bi génnee leen ko génnee ko larbin bi du ko mës a génnee comme lii moom mosul gis gisul ne ne défaut la Macky du leen mës a génneel hymne national bii du leen ko masal rayel il faut qu'il y des gens yoo xam te ne c'est des musiciens ñu créer seen propre hymne national s'il le faut ñu def ay hymne national de chaque région joolaa yi def seen hymne national joolaa ak seen làkk ñu def ci naka la ñuy jatee góoru joolaa population joolaa ba nga xam te ne xale bu ñu dégloo woy bi rek dañuy am jom parce que mairie bi ñuy dem bu ñuy dem di béy ji ils des chansons yoo xam ne bu ñu ko elles ont des chansons yoo xam ne bu ñu ko woyee day yokk nit jom ñu def ko seen hymne national séeréer yi tamit bu ñuy dem béyi jeex yooyu am nañu seen na boo xam te ne dañ koy def saay bu ñu ko wëyee nit yi day yokk seen jom da di jàpp ñu ñu xam ne ne nit dafa war a am jom defar dëkkam farlu ngir dëkkam su ko defee ngeen boycotté j'appelle boycott hymne national bii nga xamante ne amul benn njëriñ amul benn njëriñ ci àdduna amul benn tey tant que boycotté woo leen ba national boobu noonu. dafa mel ni ne yéen vous avez vous êtes nés pour danser et les autres sont nés pour se battre maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm ne leen ngeen partager vidéo bi ba góor képp ku nekk sénégalais waxuma sax góor parce que même xale yu ndaw yi sax dañu war a déglu vidéo bi pour ñu xam d'où vient le problème ko a aujourd'hui que benn xale bañatee attardé wu ci hymne national boobu noonu nga xam ne ça ne ressemble à rien du tout